onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xanaa ñu delluwaat rek santaat yàlla julli ci sang-sang di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di nuyu nag di jiital ci nuyoo bi kilifa diine kilifa aada yi rawatina nag surtout kilifa diine yi ndax comme di ko waxee rek ñoom seen toogaay daa am solo lool ci ñu réew di kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla bàyyi ñu leen fi bu baax a baax te ñu leen kàttanal ñu leen ci kàttan suñu borom ak baax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di nuyu nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu santé nuyu nañ leen ziar nañ leen comme ni ma tàmm aussi di ko waxee di leen ñaanal yàlla ndax ñoom gis nañ seen taxawaay ci Covid bi mu duggee ci Sénégal ak laataa sax Covid di fi dugg kon day jaadu ñu ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér yàlla musal leen ci bépp jàngoro boo xam ne day wàlle ci kàttanu suñu borom ak ci wax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di masaw nag askan waa Sénégal encore ci lu fi jot a jaar nga xam ne suñuy doom la ñu ñàkk ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla xare leen ci àddina yi gën a kawe ci kàttanam ak ci baax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di masawal ak seeni waajur ñu bu baax a baax di leen jottali suñuy njaal di wax nag ne aussi dañuy nuyu tamit son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay comme ni ma tàmm rek di ko waxee di la ñaana yàlla sa mandat gu kii nga nekk yàlla na oyof yàlla na yàlla dafa ndam yàlla yàlla taxawu la ci may la ndam bu baax a baax a baax ndax comme ni ma tàmm aussi di ko waxee sa ndam mooy ndamu askan waa Sénégal yëpp. kon yal yàlla dëgëral la ci kàttanam ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax nag ne askan waa Sénégal tey dañoo ñëw na pour waxtaan ndax nag réew dafa foo xam ne bu fa tolloo doomi réew ma dañoo war a toog waxtaane ko waxtaan googu nag liñ ciy jublu mooy indi jàmm indi tawféex indi ndam ci réew mi te loolu yëpp dañuy ñaan borom yaa rabbi yàlla nañ yàlla defal ci kàttanam ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tax na damay interpeller sama frère Ousmane Ousmane Sonko waaye laataa may dem ci moom damay wax ne Covid bi dafa ñëw indi lu metti ci Sénégal sëgam Ndakaaru moo yëg metti ci Covid bi waxuma la suñu parents yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Mbirkilaan ñoom ñoo nekk Kaffrine ñoom ñoo nekk Casamance ñoom ñoo nekk Njamaan bu fekkee ne Ndakaaru la mettee kon ñooñu fan la ñu jëm tey tey Covid bi indi na ba nga xamante ni doomi baadoola bi sonn na. ka daan liggéey di am astuce di ko yóbbu ci njabootam mënatul son excellence Diop daal di wax relance économique ñun képp koo xam ne na ngay doomi Sénégal nga war a jàpp ci relance waaye ñun génération positive taxaw Sénégal dañ ko ne woon ñun son excellence ñun reformulation de l'économie sénégalaise dañu ko waaye comme mi ngi jàpp ci relance te jàpp nañ ne aussi buñ ci taxawee ñun ñëpp relance bi dina indi jàmm kon na ci ñëpp jàpp ci foofu nag may interpeller sama frère Ousmane Sonko di ko wax ne heure bi ñu toll du heure parce que nag nañu waxante dëgg te yàlla rek tax guddi gii ñu toll mon frère ñaan ñuy divertir te nag bul fàtte ne Covid bi daf fi nekk te dañoo ne ku nekk na nga toog benn place ndax fi ngay dem yëpp fi ngay jaar yëpp après day am monde nit ñi dañuy regroupé te loolu la Covid bi di bañ muy benn ñaareel bi dafa am lu ñuy xaar ci yow ndax yow da nga taxaw nga ne da ngaa bëgg a jëli réew mi ndeysaan bi li ngeen taxaw. ne dafa jëli bëgg a jëli réew mi keneen it taxaw ne dafa bëgg a jëli réew mi kon ci loolu fii ñu toll nii nekk guñu ci heure xëccoo parce que nag am na koo xam ne moom la fi yàlla teg mu neex mu naqari ñu bëgg ñu bañ moom la fi yàlla teg muy son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall te dese na fi ñetti at ñetti at yooyu mu fi desee ñun li ñu war ak fi réew mi toll ak ni économie réew mi sooxee ñun li ñu war mooy yow Ousmane nga indi sa solution apporté ko nan la ñuy def ba relance bi taxaw man Ndeye Selbé ma apporté sama solution bu ñu xool nan la ñuy def ba relance bi taxaw keneen ak keneen apporté solution xëccoo bi metti na te fi Sénégal toll laajul loolu kon nag bi tax ma lay interpellé mooy dama lay ñaan promenade bi nga xam ne yaa ngi koy def soo mënee nga daggal ko nga daggal ko nga toog indi solution yi nga xamante ni jeunesse bi nga xam ne amuñu liggéey ba son excellence xam na ne jeunesse bi amuñu liggéey son excellence la ñu ko joxoon comme message mu xam ko te taxaw ci bu boobaa nag ñun dañoo war a ñëw boole suñuy force apporter ay solution yoo xamante ni dina gën a yombal liggéey te dina tax suñu xale yi am xëy dina tax suñu yaay yi am am tamit ci lu ñu jàpp ak suñu mbokk jigéen ñëpp am ci lu ñu jàpp kon heure bi ñu toll nii du heure doxantu rikk waay boo mënee nga dakkal ko. soo mënee it del apporter ay solution del génn del def say point de presse di apporter ay solution nit ñi di ci jël di ci mën a jëfal ngir Sénégal dem ci kanam ndax nag yaa taxaw nga ne Sénégal moo la ñor te dangaa bëgg a jiite réew mi keneen nit def may def la même chose ci loolu may interpeller son excellence monsieur le président de la république yow itam nee nga dégg nga li xale yi wax ba tax na yaa ngi ci taxaw waaye rek lenn rek la la génération positive taxaw Sénégal di ñaan mooy lan dige bii na nekk liggéey boo xamante ni day doon ab dëkk mu bañ a nekk li nga xam ne moo fi daan jaar ndax gis nañu nag bi nga taxawee ne dangay toppandoo waa Rwanda la nga fi indi ab sa setal cleaning day ba nga taxawee di ko def say ministre ñëpp génn di ko def yëf yi set yëf yi neex foo tourné ci ndakaaru mu set weer ngeen ko def après France kenn gisatu ñu lay ñaan nag ñun waa génération positive taxaw Sénégal lii xale yi jooytu lii xale yi mbëbët te bëgg ko ci yow te yow it nga taxaw wane na yow kat yow yaay kilifa réew mi yow yaay njiitu réew mi rikk waay waxuñu nga dugg ci bu dem un mois nga bàyyiwaat ko dañoo bëgg nga taxaw ci. ñun de génération positive taxaw Sénégal pare nañu pour ñëw apporter suñu solution pour ñëw jàppale ndaw yi ndax nag lenn moom moo ñu ñor lenn moo ñu soxal lenn moo ñu yitteel mooy suñu réew parce que nag mënoo ne da ngay jiite réew dangaa bëgg a jiite réew mi ëllëg ba pare ne da ngay nërmeel mi kon nag wasalaam askan waa Sénégal foofu laay yemale sama waxtaan di ñaanaat jàmm di ñaanaat jàmm yal na yàlla wàcce jàmm ci mi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërë ngeen Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.